بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما بشرى يوم الاثنين ومن بابه بقاء من بقاؤه أبقاني عذب من في جيش الشين القاني ñu ngi ziar ku baax يب suyuux yi ci altine ji di yi itam jëmale ci taalibe yi ak seeni jëwriñ ñiy taxawu taalibe yi sëriñ si nañu gën a ñaanal taalibe yi waaye ñaanal sëriñ si war na taalibe yi xam ngeen ni ni ngi dëgmal nisfu Sha'ban bisub ki ko tedd ki denk kun fa yëkkun di Cheikh Ibrahima Fati maam Thierno ku mel ni moom dutu fi am ci xarnu ñun ñépp nañ ko ñaanal moo ko njabootam moom boroom daaru Muxti ndaxte moom lan am te it Cheikh Ahmadou Bamba mi nu moom moo nu joxoon kon Thierno moo nu moom duma bëggoon lu nu mën ci alquran ak xasaayit ñu jàng ko ci diiwaan soo ko ku tedd ki àddiya moo ko moom nat ko ci ay leer yu mom seddel ko bepp murid ci dunya sans distinction be xëyri dunya te ñaanal ma te ñaanalal ma njabootu nooree ñi Ousmane Zi nooree ñi ndaayan mi taaw maam Cerno Biraay mii jëwriñ ñi ñëppi Cerno Biraay te ga ak yaatu ga ak simple ga loolu leer na ñëpp waaye leer na waa Louga bëggoon naa daal ku ma ñaanalal taalibe yi ginnaaw njabootu Noreyni mi nu fi bàyyi masata jaag nañ ma ko beralal ak ñaan ginnaaw wasilaan boroom daaru ma koy ñaan mu gën a ñaanal masata ci ay mbiram nah, ndax jàmbaar la ju war a fekke ay ya? mayam weer wi dafa barkeel bis bi barkeel moo tax ku ci taasu barke rek barkeel réew mi réewum sëriñ Tuubaa la nan ko nangu bu nu ko deful fawu iblis dañuy song te ñàkk fayda bay jaaxaan te muy jóge ci pàddum iblis ak i caaxaan ngeen bal ma ak man de ma ngi jéggulu waaye cey bala kenn fitee bala kenn di falu ngeen bal ma ak ndaxin maa ngi jéggulu waaye fii ku fi bëgg a tee di falu danga nangu dogalub yàlla ci réew mi Cheikh Ahmadou Bamba moom moom réew mi wassalaamu ala man ittabaal huda